wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ñëw kon ci suñu ñaareelu jotaay boo xamante ne dañ ko nose woon ci al euh, kunuzul ashara ci al saani ci euh, fasl bi nga xam ne moom moo tudd ash moom mooy wàllu sharia euh, li nga xamante moom mooy jotaay bi weesu dañoo defoon benn xeetu mbëmbëstal goo xam ne euh, ngir laytaayal euh, li nga xam ne moom mooy jotaay bi la wala boog jotaay yi nga xam ne moom la ñu war a gis euh, ci li ko dalee ci suñu jotaay bi incha allahu taala li nga xamante ne moom la ñu gisoon aussi depuis maanaam ci jotaay bi weesu ci di wax ci wàllu sharia ak importance nga xamante ne moom maanaam solo nga xam ne moom la am solo ak le fait que ni borom subhaanahu wa yoon boobu nga xam ne moom la teg moom day topp rek li nga xamante ne moom mooy yoon bi nekk ci kawnu bi e que euh, xayaatu kawnu muy dundu xeet bi muy dund bi nga xamante ne moom la euh, univers bi yëpp di dund euh, dundug kawnu bi maanaam dundug univers bi plutôt nga xamante ne moom la kawnu bi lépp lépp di am ak dund lépp loo xamante ne laal nga ko gis nga ko dafa am li nga xamante ne moom mooy ruux bu ci ne maanaam ruux boobu nag muy ruux yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gisee woon mooy esprit bi nga xam ne euh, moom mooy ar ruuxul mudabbir maanaam mooy ruux bi nga xam ne moom mooy euh, euh, moom mooy soppandiku ci mbindeef yi maanaam ruuxul mudabbiru wa faridul hadratul qudsi qul abul alam haqa'iq daqiqa ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ruux bi nga xam ne mooy al moom mooy soppandiku maanaam mooy administré donc c'est Euh, l'esprit administrateur de euh, donc moom la sallallahu alayhi donc wax mu dabbiru voilà faridu nekk loo xam ne càppaaculi bu kawe la mooy voilà loo xam ne c'est hautement singulier voilà euh, mooy xadaratul qudsi moom mooy xadara yàlla borom bi subhaanahu wa bu sell bi nga xam ne dafa jéggi dayo d'ailleurs loolu moom moo tax ruuxul qudsi maanaam moom ruuxul qudsi xaqiqatan moom mooy Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ruux esprit bu mag boobu nga xam ne mooy esprit bi nga xam ne euh, du du lu lu bind maanaam du loo xamante ne dañ ko créer mais borom subhaanahu wa daf ko melowoo te moom mooy li nga xam ne moom mooy amal mooy defar lépp loo xamante ne mi ci univers bi maanaam lépp loo xam ne dafay taxaw ci univers bi rek ba tax ñu naan borom subhaanahu wa taala day feeñ ci lu ne en fait ci esprit boobu la ko la la ci feeñee maanaam loolu la ko la ko taxawalee euh, te secret boobu muy secret yent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom la dajale ci moom mboolem turam ak melam moo tax alquran sax ci boppam borom subhaanahu wa taala daf ne nazala bihi ruuhul qudus maanaam ruuhul qudus moom moo ko wàcce maanaam bu mu ne li sabbita bihi lazina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin Euh, maanaam bu ko euh, maanaam min rabbika maanaam da nga wax qudus min rabbika bu tukkee ci sa borom par contre maanaam ci ruuhu qudus la jaar mais ci yow ci sa borom subhaanahu wa ta'aala yow yonent bi sallallahu alayhi ci la jóge maanaam kon mënut a jóge ci borom kenn ku dul ci borom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, maanaam mooy borom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala en tant que borom yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne moom mooy toppatoo léppam moom moom mooy tax ni moom moo koy ki ko te borom boobu subhaanahu wa ta'ala maanaam ci ruuhul kon mu ne bu ko defee mu dalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla euh, nekk mbégte nekk tamit maanaam euh, mu dan jub maanaam ki euh, bushan yërmën maanaam ak mbégte maanaam ak njub maanaam ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy wommatu yu al muslimun mooy ñi muslimuna yi nag mooy ñi wommatu ñëpp ci borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam tax comme alquran nag muy jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko xamee te mooy jëmmi ruux boobu noonu mooy d'ailleurs euh, moom la wol ci maam Adama alayhi salaam biñ ko wolee ci maam Adama borom sant na woon dafa fi biir ruux bi ma wolee wolee ci moom maam Adama maanaam sama ruux boobu euh, secret boobu moom moo tax maam Adama xam mboolem tur yàlla yi ak melo yu borom subhaanahu wa ta'aala comme bi mu naan allama Adama asmaa loolu ruux boobu nekk ci doomu Adama nag. par essence que borom subhaanahu wa ta'aala daf ko def ci doomu aadama ndax doomu aadama moom mooy univers bu mag bi en réalité parce que moom mooy incarné ruux boobu moo tax sayyidina Isa alayhi bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'aala dafa feeñal ci moom réalité ruux boobu noonu moo wa ayyadtuka mu ne yaa Isa ibn Maryam uzkur ni'matallahi alayka iz ayyat wa uzkur ni'mati alayka iz ayyadtuka li nga xamante ne moom la Euh, mooy sama xéewal gi ma def ci yow yow yow yente yàlla Isa alayhi salaam di doomu sayyidatuna Maryam alayhi salaam nga xam te dama laa jàppale ci ruux bi nga xam te ne moom mooy ruuxul qudus yi kon bu sell boobu nga xam ne mooy euh, euh, xadara yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ruuxul qudus yi mais boobu loolu lan la xew ba mu kookoo defalee tukallimu naasa fil mahdi wa kahlan tu tukallimu naasa maanaam da doon wax ak nit ñi ci comme fil mahdi ci bi bi mu nekkee ci kaw Euh, ci bi mu nekk ci euh, berceau bi wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyil mawta lépp nag bi izni voilà na wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni tam wa tuhyil mawta bi izni maanaam lépp ci ndigalu borom subhaanahu wa ta'aala la ko doon defee ndax maanaam euh, volet boobu noonu ruuxul qudus boobu yeneen bi nag sallallahu mooy xadara bi nga ne ci la loolu yëpp feeñee maanaam sallallahu moo tax da doon dund mooy yéen si yàlla état doon dund. boobu noonu te ruuxul qudus boobu dara lu euh, feeñu waayu borom bi subhaanahu en tant que ci xadara yenente bi sallallahu alayhi euh, te loolu moom moo nekk fépp loolu moo tax fa ay na ma tuwa tuwallu fa sama wajhullah foo leen mënti dem rek euh, foofu la borom moom foofu la maanaam jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy wajhullah maanaam wolof wëj jëmmi borom bi lay wax jëmmi buur yàlla lay wax a français di wax la face d'Allah parce que wolof boo naan defal ma lii ngir la ñuy wax voilà mais bu ma nee lii dama ko def ngir yàlla maanaam ak pour la face d'Allah maanaam bu dee wala tubaab pour la face d'Allah lay wax maanaam euh, donc euh, mu gën a dëppoo ak traduction bi nga xam ne moom la tubaab bi wax muy wacc xar euh, kon yooyu yëpp mooy ne ci lu ne la ne voilà mooy li ñu naan almaddatu sawda maanaam moom la physiciens yi tuddee la matière noire mooy ne adduna bi yëpp daf ci fees nekk ci fépp fu dara nekkul looloo fa nekk te fépp fu dara tax mu taxaw voilà nekk nekk googu nag te ñoom xam nañ ko mais xamuñu lan la maanaam mënuñu identifier lan la loolu du dara lu dul wax yenente boobu sallallahu alayhi wa nga xam ne moom mooy euh, alimenté lépp mooy waaw ku moo tax ñu jeexala bayit boobu ne xul abul abay nel mooy bàyyu bày yi mooy bàyyu bày yëpp waaw yent yàlla maam aadama sa salam mooy bàyyi bu def yent yàlla nooxa sa salam moo nekk seen bàyyi ginnaaw gi yent mooy bàyyi yenent yàlla sa salam ainsi de suite voilà nit ku nekk euh, am nga am na nga day am nga bàyyi voilà te bàyyi bi moom mooy ki nga xamante ne moom moo euh, euh, moom moo jur dëgg-dëgg doom bi maanaam ngir ne moom moo ji jiwu ji tax doom mën a sax maanaam loolu bàyyi moo ko def loolu yëpp am na waaye nag baayu bàyyi nag mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam en tant que esprit nga xam ne moom mooy esprit bu kawe boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nag kenn ku ñun en tant que doomu aadama borom subhanahu wa ta'ala daf la defal ruux boobu et que euh, euh, moo tax ruuxu doomu aadama wuuteeg yeneen ruux yi nga xamante ne ñoom ñoo am comme ni ñu ko woon euh, sauf que ruux boobu dafa taxawee en tant que xalifa yàlla maanaam bu dee nit doomu aadama mooy xalifa yàlla ci kaw uni ci univers bi mais univers bu mag bi te moom mooy doomu aadama comme ni ñu ko woon maanaam ruux doofu aadama moom mooy mooy mooy xalifaam voilà moo tax euh, bi mu nekkee xalifaam nag borom subhaanahu wa daf koo tàggatalal ay euh, ay ministre maanaam ay jëwriñ daal maanaam ko mën nañ ko tuddee premier ministre moom mooy xel mi nga xam ne am na tamit muy muy xel mi bu ko defee muy mën di soppandiku di mën di administrer bi nga xamante ne moom mooy li ko borom subhaanahu wa ta'aala yaram bi ci la bokk euh, moo ëmb lépp nag yaram bi moom mooy xalka xaykal bi quoi mooy jéget gi mooy Euh, nan la mooy structure bi mooy yaram bi sauf que euh, xel mi moom la euh, moom moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy mooy mooy administrer affaire bi moom moo koy maanaam moo ci xalaat moom moo tax roos xel mi la jël daal koy déléguer pouvoir yu baree bari ne ko dee ma ko toppatool nangam dee ma toppatool li nga xamante ne mooy nguur gu mag gi nga xam ne mooy nguuru yàlla gi nga xam ne man la ko dénk maanaam ndax mooy xalifa yàlla dégg Euh, ndax ruux dafa am ay ay ay ay ay ay euh, qualificatifu lépp loo xam te ne tax na ñu la teg xalifa maanaam ruux daf koo am voilà te moom mooy masalan la fait que euh, moom ci boppam moom mooy mooy maanaam ak ngóora par exemple mooy ngóora gi ci moom la nekk ndax bi mu sëyee ak bakkan ci la jëmm ji taxaw maanaam ci la jëmm ji taxaw kon maanaam ngóora gi ci moom la nekk ñaareel gi moom mooy ak mat voilà ruux dafa mat parce que ci borom subhaanahu wa ta'aala la jóge euh, ci waa Quraysh la bokk comme ndax xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ndax xam nga loolu bon même bu dee ñi nga xam ne ci xalifa zahir yi maanaam ndax nekk xalifa ci zahir dafa am lu ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim d'accord am luñ ci wuute ñi nga xam ne d'accord nañ wuute nañ ko bokk na ci te mooy lu ci gën a mag mooy est-ce que war a bokk waa Quraysh waa wala déet al a'immatu min Quraysh mais ne eh, ci nga xam ñi nga xam ne ñooy njiit yu mag yi mooy ñi nga xam ne ñooy xalifa yi ñoom ci Quraysh lañ leen di tànnee bu bu fekkente ne waa Quraysh am nañ euh, kon te euh, ruux comme que ci ruux yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xaqatul muhammadiyya lañ jóge ñoom ñëpp euh, en tant que ruux esprit donc ñoom ñoo yeneen bi ñoo bokk askan kon sallallahu alayhi wasallam kon ci kaw loolu moom moo am doole boobu naka noonu tamit. Euh, us islam mooy lu fekk nga nekk jullit ku wommatu ci yàlla ruux moom dafa wommatu ci yàlla yi kese d'ailleurs xamul leneen lu dul borom subhaanahu wa ta'ala ku dul yàlla xamul dara lu dul li borom subhaanahu ak li mu bëgg euh, naka noonu am na doole am na kàttan am na sañ-sañ te loolu voilà ba pare am na xam-xam itam parce que loolu yëpp parce looloo tax lépp ci borom subhaanahu wa Euh, moom daf koy kon te xam-xamam ci borom bi la ko jëlee euh, loolu moom moo tax moom euh, bi sharia ñëwee muy suñu sharia bi ruux moom mooy ki administré maanaam li borom subhaanahu wa ta'aala am ci mbindeef ci naka noonu ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ruux bu mag bi d'ailleurs moo tax jamono ju nekk dina am benn ruux boo xam ne moom la ñuy samp muy nit doomu aadama joo xam ne moom la ñuy samp moom la ruuxam di administré univers bi. mu am yeneen i ruux yu koy jàppale ñooñu la ñuy wax waa ahlu diwaan euh, nga xam ne ñoom ñooy administré lépp lu nar a xew rek ñoom ñooy daje waxtaane ko euh, tax maanaam ci guddi gu jot euh, dinañ ko dinañ daje waxtaane ko balaa fajar di xar et que lépp lu nar a xew ci ñoom maanaam ci ñoom lay jaare bon loolu yaakaar naa ne jotoon nañ ko leeral ci suñu jotaayu njëkk yi ci Kunûz yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy façon nit ñooñu noonu nit yàlla yu mag yooyu radiyallahu anhum et que khutbu bi nga xamantene kon euh mom ruh moy administrer univers bi yep mais à travers ruhu yaronte bi sallalahu alayhi wasallam euh ak ruhu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne mooy xaatimul awliya mooy alxutbul maktum war barzax wal barzaxul maktum voilà radiyallahu tabaraka wa ta'ala euh legui ruh bi nga xam mom la doomu adama am manam mom en tant que doomu adama borom subhanahu wa ta'ala wol maanaam wol ko ci moom moom tamit day taxawee taxawaay boobu ci biir doomu aadama loolu moom moo tax léegi nag comme que il faut moom ay ministre ay wuzara umara et cetera moom day jël ci xel teg ko et que bakkan euh, bakkan mën nañ ni moom mooy jabar bi maanaam euh, maanaam mooy bakkan mooy ki nga xamante ne moom la ñu war a toppatoo moom la ñu war a toppatoo parce que bakkan lépp lépp day wërwërloo ci bakkan moo tax bakkan moom mooy dund mooy dee te day mos dee d'ailleurs ainsi de suite moom mooy ki nga xamante ne yëpp autour de moom lay wërwërloo euh, xolu doomu aadama tamit borom subhanahu wa ta'ala may na ko ko même ko mayee xel euh, daf ko may tamit xol maanaam xol sax la ko jëkk ko jox te xol boobu noonu moom mooy place ruux voilà moom mooy place ruux moo tax euh, ruux amul place bu fixe ci jëmmi doomu aadama mais dafa am siège ci doomu aadama siège am boobu nag nga man foofu mooy siège am bu mag bi euh, moom mooy xol ci xol la ne dégg euh, xol xol doomu aadama nag moom mooy euh, moom moo dajale melo yi nga xam ne moom mooy melo yu baax yeeg yu bon yi ñoo foofu lañ dajee humeur yi foofu lay dajee ainsi de suite et que bakkan tamit foofu la amee siège parce que bakkan kër ruux lay dëkk Euh, loolu moom moo tax parce comme genre soxnaam la ba pare mu nekk ki nga xamante ne moom moom it euh, daanaka lépp ci yaram bi fokk bakkan nekki muy moom muy doog am mooy am li naan l'âme en français c'est-à-dire que nit ki su am bi nekkul ci moom day dee mais ruux moom mooy xil xalifaam mooy xalifa bi nga xam ne moo war a administrer lépp ba pare bakkan war a nekk ci ay waawam ak ay déetam voilà bakkan nekk ci waawam ak ay déetam Euh, loolu bi mu amee kon bakkan bi moom mooy li nga xam ne moo soxla ñu sellal ko moo soxla ñu defar ko moom moo soxla maanaam bakkan bi moom mooy dig nekk ci lu bon wala moom mooy baax maanaam moom mooy sobewu pour nit ki nekk yéefér wala boog mu tilim mu tilim euh, nit ki nekk jullit gaamee bu tilim euh, bakkan moom mooy am moom mooy maanaam yu bari bari yi nga xam ne mooy caractéristique mbaax wala bon loolu bakkan a koy def voilà bakkan moom mooy nekk ci lu moom mooy sell tamit dem ba nekk ci sell ñoom ndax suñu ma naa radiya et cetera maanaam loolu bakkan moo koy def tamit bakkan mooy nekk nafsun euh, ammaara bi su di digle lu bon nekk ci lu bon euh, tilim takk rip loolu bakkan moo koy def mais ruux moom dafa sell nekk ci borom subhaanahu wa ta'ala te que moom mooy ci borom bu wàcce nekk koo xalifa euh, sauf xel aussi borom subhaanahu wa ta'ala may na benn projection ci xel beneen affaire boo xam ne lool xayal yàlla tudd loolu gisoon nañ ko moom mooy tax nit ki buy dugg ci gént muy mën di am ay révélation à travers gént yi gént wala mu am ay yenn bëgg bëgg yi ñu koy jox et cetera euh, am na partie bu bari loo xamante ne ci wàllu yii yëpp benn bu ci nekk développé nañ ko bi ñu gis euh, alam awalamul insaan mooy euh, chapitre boobu doon wax ci univers yi yàlla bindaale ak nit maanaam univers yu mag yi yàlla borom subhanahu wa ta'ala dëxëñ ci doomu aadama loolu koy gis euh, am na yu bëree bëri ci wàll lenn lu ci nekk ak kay précision ak ni nga jagoo euh, leeraloon nañ ko lu bëree bëri foofa wala alhamdulillah euh, mais léegi sauf que sauf que ruux borom subhaanahu wa daf koy won ne yow rek maanaam maanaam sama jaam nga maanaam malgré que ni Euh, defal naa la teraanga yëpp wol naa ci yow maanaam maanaam sama sama wol nga maanaam suuf di nga et que euh, yow laa def xalifa bi ainsi de suite mais le fait mu nekk xalifa euh, terewu ko nekk jàmm maanaam yàlla rek moom mooy boroom keneen du boroom yàlla rek moo mën nekk yàlla voilà xalifa yàlla ci kaw suuf tamit jaamu yàlla la voilà yeneen ci saa bi mu nekk xalifa yàlla bu mag bi jaamu yàlla la tamit mooy jaamu yàlla bu mag bi euh, ñi nga xamante ne ñoom yëpp xalifa yàlla yi yëpp ñoom ay jaamu yàlla lañ euh, léegi ruux moom mooy jaamu yàlla bu mag bi tamit nekk xalifa yàlla bu mag bi tamit ci ci univers am bu mag bi mooy doomu aadama mooy univers bu mag bi comme niñ koy gis et que univers bi li ci nekk yëpp maanaam nekkul dara lu dul ay reproduction ci univers bi nga xam ne mooy doomu aadama Euh, ci mboolem éléments yi parce que éléments yi naturels yi ko composé ñi ngi ci doomu aadama tamit mooy ndox tàkk-tàkk euh, euh, ak ngelaw maanaam ñeent yooyu mooy élément naturel yu mag yi mooy anasirul arbaa yi ak li composé ñoom ñëpp ñi ngi doomu aadama maanaam ci biir doomu adama voilà nga xamante tamit lenn lu ci nekk ci doomu aadama ci jëmmam dafay représenter benn partie ci nature bi comme karaw yi li muy représenter par exemple gàncax gi ainsi de maanaam pour expliciter rek que ni lépp ci doomu aadama day représenter benn élément wala ay élément ci nature bi euh, léegi bi nga xamante ne am na lu ñuy wax maanaam euh, mbir mi demee na noonu kon borom subhaanahu wa ta'aala day dafa am yeneen i mbir yu mu bind yu mu créer ñoo xamante ne. Euh, ñooñu borom subhaanahu wa ta'aala dana la jox ay autorité maanaam dana la jox kàttan sañ-sañ comme ni mu joxee ruux kàttan ak sañ-sañ te ñaar ñooñu ñoom ñooy euh, hawa maanaam bànneex al hawa wa shahwa maanaam bànneex muy bànneexu bakkan quoi voilà ñooñu nag dañuy mën di digal bakkan maanaam dañuy am pouvoir ci bakkan comme ni ruux amee pouvoir ci bakkan sauf que ruux moom pouvoir bi daf lépp lu aju ci wàllu adduna ak àllaxira lépp xel di ci administré di ci xel di xalaat di xool lu yanu maanaam lu yanuwul maanaam mais comme que xol mooy centre bu mag bi et que xol mooy li nga xamante ne ci doomu aadama su baaxee lépp baax su bonee lépp bon comme ni xarit bi wax donc ñoom ñëpp xol la ñuy xëccoo et que xam nañ ni ku moom xol yaay moom lépp te bakkan siège am ci xol la ne comme wax parce que euh, nañ ni Euh, bakkan moom mooy euh, maanaam mën nañ koo melale comme essence comme jabaru ruux moom mooy soxnaam voilà voilà voilà wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha maanaam nga xam ne borom subhanahu wa ta'ala tam daf koy yënkiwal ak kàccooreem maanaam mais tamit ak ragal yàlla voilà borom subhanahu wa ta'ala defar ko tabax ko voilà. Euh, mais bi bànneex ñëwee maanaam ñoom bànneex yi mooy xawaa mooy li nga xam ne ban bi dafay dafay jéngi jëm ca mooy mooy mooy xawaa mooy loo xam ne day màmm jëm ca euh, saxwa mooy bànneex mooy passion yooyu nag ay tàkk-tàkk la maanaam parce que ci safara lañ leen bindee alors que ruux ci leer lañ ko bindee euh, moo tax bànneex comme ñoom ci safara lañ bindee ñoom duñu xàmmee lu dul li nga xam ne <laughs> Euh, su su su maanaam ñoom du ñu xàmmee automatiquement maanaam ñoom bu ñu gisee leer gi tukkee ci borom subhaanahu wa du leen neex ñoom dañ dañu koy bëgg a dal te xamuñu ne loolu moom moo leen di jural njariñ te it beneen bi ci def moom mooy sharia su ñëwee euh, bànneexu bakkan bi du du pilier wu déedéet du pilier wu bànneex yi du ñu pilier wu ci loolu parce que euh, wala boog duñ ko xàmmee plutôt plutôt duñ ko xam ne duñ xam ne dëgg la ruux dina ko xam mais mais mais mais bànneex yi ñoom duñ xam loolu ñoom li leen neex lañ xam mooy li nga xam ne moo aju ci affaire àdduna euh, léegi nag bakkan tamit moom bu mosee bànneex du ko nangoo baax parce que léegi nag comme comme xel moom la ruux ne saa gardeel ma sama jabar ji euh, parce que bu yàqoo xol xol bi kër gi day yàqu muy xol bi te bu kër gi yàqoo jëmm yëpp yàqu maanaam mboolem li nga xamante sama palais bi mooy sama sama palais bi mooy fii fi buur bi di dëkk su yàqoo ak maanaam pouvoir bi yàqu ma maanaam ki war a toog di administrer pouvoir bi day yàqu euh, léegi su ko defee xel mi moom bànneex yi dañuy ñëw pour corrompre ko maanaam dañuy ñëw wan ko ne ko euh, écoute euh, mën nañ ñun ñun ñu ngi lay proposer ay dañ lay jox ay proposition maanaam ah. su ko defee bànneex yi bu ñu proposer xel mi xel mi euh, da léeg-léeg mu maanaam bu bu bu bu bu bu léeg-léeg xel yi résister mais léeg-léeg bu xel mi séddee rek maanaam ne woy finalement woy bii pas dinaa leen bàyyi rek day jékki-jékki rek bànneex <laughs> bànneex yi daal di dal ci bakkan bi te bu bu ban bakkan bu mosee bànneex jeex na c'est fini pour nga pour nga indiwaat ko il faut que ruux am doole goo xam ne dana toqal ci kawam euh, toq ci xol surtout toq leer boobu bu ko defee ban euh, bakkan bi mën a fay comme niñ ko gisee woon ne euh, moo tax li koy li koy li dindi bàkkaar moo tax moo tax nit ki su xamul benn bàkkaar nii du ko def du ko def maanaam en tout cas du def ko mais su ko xasee ba xam ba mos ko ba def ko pour mu bàyyi ko c'est tout problème bakkan tout le temps day revendiquer waat loolu da koy laajaat tout le temps di revendiquer waat même bàkkaar bi ngir mën ci am bànneex léegi nag bu loolu amee ruux day perte bataay bi et que ruux day jékki-jékki laajkal ne ko mais yow li ma déggul lu tax ruux lu tax bakkan man seetlu naa ne mën suma jot ci ma ko woowee wuyu lu ma bëgg ci moom du ma ko mën a am bu ko defee xel danaan ko ah fi mu toll kat dafa am ñoo xam ne kat dañuy xëccoo gi yow comme ni nga xam te te ñoom danoo am accès ci bakkan comme yow ni nga amee accès bu boobaa day daal di mën a perte bataay bi wala boog pour mu mën a xeex en tout cas il faut que borom subhaanahu wa ta'ala dimbali nit ki dëgg dëgg dëgg euh, ngir euh, wala boog ñu tarbiyewaat ko yar ko delloowaat ko ci borom subhaanahu wa ta'ala ngir mu mën a teg tegu la moom euh, mais loolu moom moo tax nit ñi xaajale ci ñeent xaaj globalement mais boo xamante ne dëgg-dëgg. mën nañ ko xaaj comme ci njàlbeenu sóoratul Baqara ni ko borom saxaar subhaanahu wa ta'aala xaajee ci ñetti xaaj sauf que ñetti xaaj yooyu euh, maanaam ñaar yu njëkk yi dañoo dañoo dañoo dañoo maanaam benn lañ maanaam ñeenti xaaj yi ñaar njëkk yi benn lañ mais euh, am nañ différence quand même euh, mooy ñi nga xamante ñoom dañoo gëm yàlla te ragal yàlla ñooñu ñoo xaajaloo ñaari xaaj ñooñu mooy ñi nga xamante ne biiti maanaam Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a kawe mooy ñi nga xam ne ci biti xel moo dominer seen seen seen côté li feeñ ci biti voilà ci zahir dañuy fexe ba e-, extérieurement ñu correct ñu mel ni ñu war a mel di sàmmonteeg li ñu war a mel parce que xol parce que xel moo moom moo leen dominer maanaam moom mooy euh, dafa garder li ko ruux dé di mu ne ca mais ci biir tamit ci biir tamit xel moo ko dominer moo naan moo naan xol bi lii moo baax xel maanaam xol bi day day nangu topp li xel mi di wax te xel mi li mu wax mi ngi ko jëlee ci ruux su ko defee euh, mu mën a jub maanaam mën a tegu ci yoon wi euh, ñaareel bi ñaareelu nit ki nag te même groupe bi la maanaam ragal na yàlla gaa kii na mais sauf que dafay mooy yàlla lu bari maanaam am na tuuti ragal yàlla bu nekk moom jullit la gëm na yàlla mi ngi jéem a topp charia mais daf ci bëri loo xamante ne daf koy moy maanaam daf daf daf koy maanaam daa bëri ay bàkkaar yu muy def bara yàlla gi wàññeeku na des na kooku mooy ki nga xamante ne euh, ci biti nii xel ni xol maanaam bànneexu bakkan yi ñoo ko maanaam bànneex yi ñoo ko dominer mais que ci biiram xol kii ci biiram xel mee ko dominer ce qui fait gëm yàlla quand même te dina ne xam na ni am nay borom bu mu war a jaamu malgré que Euh, ci biti ni dina ko moy euh, mais quand même jullit la quoi gëm yàlla quand même ba tey malgré que dina def lu bon xam na ne ah li may def de baaxul yàlla bëgg ko mais nag euh, waaw mais nag daal sama bakkan moomu noot quoi maanaam kon kooku xel mi mi ngi koy yedd ci de l'intérieur mais xel mais mais mais mais mais neex bakkan ñoo dominer extérieur ci biti mu am groupe bi nga xam ne ñoom Euh, ci biti ci biti nii ba euh, xel mee ko dominé maanaam xel mi moom mooy tax muy jéem correct di mel lu baax et cetera mais biiram moom gëmut dara maanaam biiram maanaam bànneexu bakkan yee ko dominé moom kooku mooy naafiq mu am keneen ki nga xamante ne moom mooy nag ki nga xam ne moom bitim ak biiram yépp xel mee ko kii bànneexu bakkan yee ko dominé kooku muy yéefir bi euh, ñooñu nii Eee, euh, lor moun mwata, ti tibir, manam, jan ou introdiksyon ou bi nou defas mi, ti wan lou gwo ou, ti nge kame importans ou chare abe. Patke chare abe do penye ou pou defar nit. Te se defari nit, me osi, manam, nit bi nyak mwen mwen univerbo magbi, me chare abe do penye ou tabet, gir defar tabet abdouno gou magbi. Abdouno goun na ou bi, te mwen mwen, abdouno bi nyak mwen mwen le moun materyal bi nyak mwen moun ekteriyer don adam. An realize, yow la ba tey en tant que doomu aadama yow yaay adduna bi yëpp yow yaa am solo ci adduna bi yëpp ba subhaanahu wa ta'aala tax mu bind asamaan yeeg suuf si bind ko nii maanaam yaatal ko bind biddiw yi univers yi yi bind lépp ba pare préparer suuf si ay million wala ay milliards yi années laataa ngay du fi nekk lépp pour préparer pour yow nit nga ñëw la du pour leneen pour yow nit nga ñëw nga jaamu ko nga nga nga taxawu ko nga nekk xalifam loolu tax na moo tax même yent yàlla Daawuda alayhi salaam nga xam ne gis nga yent yàlla Daawuda alayhi salaam borom subhaanahu wa ta'aala daf ko wax maanaam loo xamante ne daf ñu ko dund ñun ko euh, d'ailleurs ci même wax naan ne aaya euh, ne ne wa maa xalaqa as-samaawaati wal arda wa maa la waxee loolu euh, mais ah la aw ma xalaq samaawaati wal ard mu ne zaalika zannu lladiina kafaru loolu mooy nag njort yéefiri ñi weddi yàlla ñoom loolu lañ foog dañ foog ne yii yëpp c'est futile amul njariñ déedéet fa waylul lil ladina kafaru minan naar mu ne toske de ñen ñi xam dañoo weddi yàlla ci safara mu ne am naj'alul ladina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar ndax dañuy def ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla gëm gu dëggu te wér tey sóobu di nekk di jëf jëf ju sell ñooñu ndax dinañ leen yamale ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy càccoor yi ñoom ah, ah, ñuy yàq ci kaw suuf si nga xamante ne ñoom univers bi suuf si ni ko yàlla defaree préparé ko toppatoo loo loo leen ko ci côté yëpp la ci zahir ci batin y compris environnement bi y compris écologie bi y compris euh, animaux yi y compris maanaam lépp rek lépp lépp lépp borom subhaanahu wa taala daf ko dénk doomu aadama en tant que xalifa ñooñu noonu ñi koy yàq mais i ko mais nag plus que loolu li gën a garaaw mooy jikko yi nit ñi mooy jikko yi nit mooy seen doxalin seen gëm yàlla topp yàlla teg seen tànk ci li borom subhaanahu wa laa digle loolu moo gën a garaaw yàq googu moo gën a garaaw est-ce que ñee dinañ ñoo leen yemale ñii am na mu ja'alul muttaqiina kal fujjaar ndax dinañ borom subhaanahu wa ta'aala ne ndax danañu def maanaam yi eh, ñi ragal yàlla danañ leen yemale ak ñi nga xamante ne ñooy kàccoor loolu xam ngeen ne yanul maanaam moo tax mu teg ci ne kitaabun téere ngi nii muy alquran bi téere la wax ne anzalnahu ilayka dañ ko wàcce ci yow yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam te ci yent yàlla muhammad rek la mënoon a jaar mënta jaar ci keneen ndax mooy ruux bu mag bi moom mooy adduna bu mag bi mooy univers bu mag bi moom mooy ki ne moom mooy esprit bu univers bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ wàcce ci moom alquran mu ne pour lan mu ne li yadabbaru ayati wa li yatadhakkara ulul bu ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy gaa yi mën di settantal bu baa di xóotal ci settantal gi ci aaye alquran yi mboolem xeetu xam-xam yi mboolem njàngat yi di ko ci mën di jëlee mu ne waaye bu ko defee ñi nga xam ne ñooy borom xel yu ñaw yi yu sell yi ñoom di ci jariñoo aaye boobu waxoon nañ ko léegi ci wàllum xel maanaam njariñ gi nga xamante ne moom la am ak borom sant la tàggat bi mu ne ko tàggatal euh, mais aaye avant aaye yooyu dafa bokkoon ci histoire yonent Yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam ah maanaam ak ñalgu bi nga xamante ne moom la gaa yi ñalgu mooy mooy mooy yéeg yéeg ci kaw miir bi nga xamante ne mooy moo wàcc ci mihrab bi fi mu nekkoon di jaamu yàlla ah maanaam ba nga xamante ne ci la ñëwoon borom sant daal ne ñu jiit non fa istasawaru mihrab maanaam ñu ñëw mën fa fage aminhum maanaam mu mu tiit mu ragal leen maanaam mu ne fa xas maa ni bëgg a baax ala baax bi xas ku mbay naa naa bil xaq wala tas wala tas wax dina la sama istiraaq maanaam ne ñun dafa am ñun ñaari ñaari gaay lañ dañoo dañoo am problème suñu kenn ki nag ah, dafa xaw a jéggi dayoo maam beew ci kaw keneen ci kon àttee ñu suñu diggante voilà te nga teg ñu yoon bu jub bi waaw bul jéng nag teg rek ci yoon bu jub bi ah mu ne inna a akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida fa qaala kaffilniha wa 'azzani fil khitab ah, mu ne ki nga xamante ne ah, mu ne kii sama mbokk la maanaam waa ji wax ki di wax wax daan ne kii daal sama mbokk la ah, moom dafa am juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti xar xar yu ndaw xar ay mbote naaja man nag benn laa am mom mu ne ma nag mako jox dénk mako kon jox mako kanam ba bare mu noot ma ci ci ci ci ci débat yi quoi wa azami fil khita mu ne ko ah laqad zalamaka fi su'aali na'jatika ila ri'aatika wa inna kathiran min al-khulataa ila yabghi ba'dhum la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu s-saalihaati wa qaliilun ma hum fa zanna Daawuudu annaa fatannaahu fa kharra raaki'an wa anaam borom bi ne fa ghafarnaa lahu dhaalika Euh, mu ne euh, dafa am mu ne ko ah tooñ na la nag tooñ na la de tooñ na la de ci laaj bi mu laaj sa sa xar mi ci yeneen xarit waaye nag mu ne ñu bari li ëpp nag ci ñi nga xamante ne dañuy eh, ay xulafaa u lañ mooy dañuy jaxase seen alal yi ñenn ñi la yabri ba'dhum ala ba'd ñenn ñi dañuy beew ci kaw ñeneen ñi tooñ leen maanaam mooy ñiy associé ci entreprise yi wala yooyu ñenn ñi dañuy tooñ ñeneen ñi quoi wala ñu bokk société bi. di dundandoo ci société bi lu ci bëree bëri ñe ñenn ñi dañuy nekk di tooñ ñeneen ñi dañuy abuser ci ñeneen ñi quoi voilà ba mu des nag ñi nga xam ne ñoo gëm gëm bu wér dëggu te sell ci seen diggante ak seen borom subhaanahu wa taala euh, te ñooñu a wax ñoo tuuti bi ne yent yàlla daaw daa sa fa zan na daaw maanaam ko di xam ne ndekete dañ koo dañ koo dañ koo natt mu daal di fa xarra raki'an wa anab mu daal di rot sujjóot ci borom subhaanahu wa mu nekk place sujjóot euh, waaye borom subhaanahu wa loolu diggantelu maanaam dafa dafa gaaw a rek maanaam nga gis ne àtte boobu nga xam ne moom moo am da gis ne da daal di man moom mooy xew ci moom moom la bi maanaam mooy nguur gi ci royaume bi te royaume bi mooy doomu aadama ci boppam. daa iman day am ay conflit d'intérêt ci ay mbiri boppam voilà bànneexu bakkan di ëpp doole la rek li nga xamante ne moom mooy xel mi wala bax wala wala boog bi maanaam di tooñ voilà borom subhaanahu wa ta'ala ne te pourtant acte bi acte baax na li mu wax baax na mais ko maanaam mais dafa waroon euh, li gënoon ci loolu yëpp moom mooy mu déglu keneen ci ba pare ba mu wax moom ab yoon ba pare mu doog a teg acte bi waaye ànd ak li mu àtte baax na ndax maanaam deful bakkaar waaye nag mu daal di dellu toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala amma qissa yi ci yeneen ñuy nettali dafa yónni woon xaw ma benn soldaar yooyu yëpp waxi caaxaan la d'ailleurs sax dañuy ragal ku ko ku ko wax sax ba pare gëm ko nekk yéefér parce que euh, comme li imam al-Alusi wax ak euh, al-Qurtubi ak ñeneen rahmatullah alayhim ne dañuy ragal dañuy tiital ku guy mu nettali loolu ba pare jàpp ne loolu war naa mën yàlla Daawuda comme li Cheikh Ahmed Tidiane tamit wax radiyallahu ta'ala anhu ci Jawahirul Ma'ani ak ci al lu tax parce que dafa impossible ci yeneen alayhi salaam muy doxalee doxalee mu ñaaw woowu mooy jël sa benn waaye yoo xam ne da yow da ngay yor juróom-ñeent fukk ak soxna moom am lu benn soxna nga gis soxnaam soosu nga bëgg koo nangu ci moom tax nga di ko yónni muy muy dem di di xeexi ba keroog muy dee pour nga nangu soxna loolu naka. naka la ko ab jullit di gëmee maanaam loolu ki gën a néew ki gën a ci biir jullit ñi du doxalee noonu doxale mu ñaaw woowu nga bëgg a jël ne ab yeneen di def na loolu parce que koo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala wóolu na ko ba def ko xalifaam ci kaw suuf ndax alxuraan kat li muy rëy rëy ñaar la borom bi ne def na leen xalifa ci kaw suuf mooy maam Adama ak yéen yàlla Daawuda ak sa saam donte ñeneen nekk nañ ko mais ñii dañ ko incarné ci anam goo xamante ne dafa gën a motax borom ne ko ya Daawuud inna ja'alnaaka khalifatan fil ard fahkum bayna an nas bil haqq wa laa tattabi'il hawaa fa yudillaka an sabiilillah inna alladhiina yadilluuna an sabiilillahi lahum 'adabun 'adhaabun bima nasu yawm al-hisab wa lahum 'adhaabun bima nasu yawm al-hisab yow incha allah Daawuud alayhi salam ñun dañ la def nga nekk xalifa ci kaw suuf kon boy àtte na nga àtte ci digënté nit ñi ci dëgg. tegal mbir yëpp ci dëgg te xam nga xaq googu lan la mooy alquran borom bi nee na bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazala ci dëgg la wàccee ci ci dëgg ci dëgg lañ ko wàccee moom alquran te ci dëgg la wàccee borom subhaanahu wa taala ne asamaan si suuf si binduñu ko illaa bil xaqi lu dul ci dëgg te dëgg googu mooy xaq muhammadiyya mooy dëgg yi mooy réalité yeen bi sallallahu maanaam loolu moom lañu moom la moom la yàlla bindee asamaan si suuf si euh, kon ci yent la daawud alayhi salaam li nga xamante ne moom mooy dëggu googu dafa am dafa manifesté ci téere bi ko borom bi subhaanahu jox te moom mooy zabuur moom la ko borom bi jox subhaanahu wa taala euh, naka noonu muy àtte woo ci tawraat maanaam nga xam te ne di àtte woo ci li nga xam ne moom mooy dëgg gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala te loolu yëpp sharia la tudd te loolu yëpp islam la tudd mooy wommatu gu ma sëkk gi ci borom bi subhaanahu wa taala kon dëgg gi nga xamante ne bu dee ñun li ñu concerné mooy alquran ak nañuy teg lépp ci loolu ñu atte woo ci borom subhaanahu wa ta'aala wala tattabi'il hawa te bul topp bànneexu bakkan xam nga waxoon naa sànq la bànneexu bakkan mooy ki nga xam ne moom moom moom boo ko toppee rek day dem lu ko neex te moom comme que xàmmewul sharia en tant que dëgg bu tukkee ci borom subhaanahu wa ndax ndax liñ ko bindee la ba pare amul benn caractéristique lu war a tax mën a nekk xalifa ndax amul xam-xam. ba moom moom moom lu ko neex rek lay topp xam-xam euh, amul euh, yu bëri bëri amul wommatuwul ci dara moom moom wommatuwul ci yàlla de au contraire sax seytaane moo koy moo koy utiliser euh, ainsi de suite maanaam caractéristiques yi mën a tax ñu ñu mën ko mu mënoon a nekk xalifa ci maanaam di war a toppatoo mamlakat yi maanaam nguur bu mag di ko borom bi jox subhaanahu royaume bi te moom mooy jëmmi doomu aadama loolu maanaam moom amu ko moom bànneex moom xamul loolu moom daal li ko neex rek la xam comme niñ ko xamee daal euh, mu ne bu ko def bu ko def bul topp bànneex parce que bànneex soo ko toppee fa yudillaka an sabilillah daf lay sànk wëllif yoonu yàlla yoonu borom subhaanahu wa ta'ala ba pare mu ne ne waaye innal ladina yadulluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima ñi nga xamante ne ñoom ñoo sànq wëlif yoonu buur yàlla bi subhaanahu wa ta'ala dinañ am mbugal bu tar ci sababu li nga xam ne moom mooy ne fàtte gi ñu fàtte ba waajaal waajaluñu bis bi nga xam ne moom lañ leen di ceytu maanaam bis bi nga xam ne moom la audit bu mag bi di am ñu leen di auditer waajaluñ loolu waaw ñu ceytu seeni mbir euh, euh, bi ci buntu boobu Euh, dañuy solo gi mu am solo mooy bi attewoo ci moom di tegoo ci moom et que loolu euh, nit ki war na fexe ba xelam muy jëfandikoo xelam daa iman di ban di di di topp bànneexu bakkanam parce que lu nit di gën di topp bànneexu bakkanam xel mi di gën di tuuti maanaam doole gi xel mi am ci moom di gën di tuuti te xel kat moom la wax dénk mbir mi Euh, xol lañu war a defar toppatoo ko moom moo tax mooy barzax bu mag bi et que xol moom moo war a wommatu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala et que képp xam ne moom nga xol yow ci doomu aadama euh, kon ci kaw euh, kon li nga xam ne moom la al imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwaan rabbani di bind ci wax mu ne ahwaalul abdi xaalu jaam bi tatajaddadu day Euh, day day day day yeesu day yees saa su nekk maanaam tahajjud mooy day renouveler wu saa su nekk xaalu nit ki bi nga xam ne am ah mooy doomu doomu doomu aadama bi daa iman xaalam day soppeeku maanaam bi yeesaat di nekkaat beneen xaal bu bees waaye wala yu'tabaru te déeful bàyyi xel fii haa ci doomu aadama bi illaa lu dul xaal xaal bi nga xam ne mooy alxaadir bi teew xam nga doomu aadama euh, dafa am ñetti xaal yu mag ñoo xam ne ñoo nekk ci moom mooy bi mooy lu weesu alxaadir li teew mooy présent almaadi mooy passé ak almustaqbal mooy ëllëg maanaam li ci jëm euh, mais lenn rek am solo ci ñetti temps yi yëpp benn temps moo ci am solo mooy le présent mooy tey mooy nii nii nii ci lan laa war a ne loolu mooy li nga xam ne moo ci am solo lu tax mu ne is ndax almaadi yi li weesu xadil xarada weesu na moom jeex na jeex na tàkk li weesu moom mënoo indiwaat temps bi ne nañ indiwaat temps bi pour que la weesu amaat loolu mënta ne au moment où am na yow léegi li weesu mu nekk sa préoccupation bu mag bi nga xamante ne moom ngay nekk tout le temps di ci discuter di ci euh, di ci di ko toppatoo di di di di moo xam nga di ko moo xam nga di ko puukarewoo euh, moo xam tamit di rëccu ak di naqarlu la weesu rek nekk ci rek nekk ci loola parce que boo ca nekkee dan lay def day tax ba li nga war def tey tey doo ci ne te tey jii am na lu lu lu lu lu lu la war moo tax ne ihfaz na nga wattu nga sàmm nga sàmmonte ka sa waxtu al fard bi aji càppaaculi parce que en réalité Euh, xaqiqatan benn waxtu rek am euh, boobu nekkul dans le temps cest du du du du du du temps moo tax même boo xoolee alquran baat yi ci ñëw waxtu lay ñëw lay indi ak saa mooy heure bi waxtu heure bi mooy mooy li li li xew mais zaman temps li ñu naan temps ci ci ci ci ci ci ci ci tubaab. zamaan jamono comme ni ko wolof di waxe loolu existé réellement moom dans la réalité jamono existé wul temps existé maanaam ak def def la la illusion la maanaam ñu dañuy foog ne temps bi dafa existé en réalité existé loolu moom moo tax relativité bi di am ci wàllu temps euh, et que li existé réellement mooy heure moment le moment précis le moment mooy waxtu le le le l'heure mooy saa yooyu ñoo ñëw ci al moo tax yooyu ñoo ñëw ci alquran mais temps nii zaman nii loolu amul lu dul ci sunu ay perception sunu ay illusion voilà euh, et que mbir yi dañuy xew et que benn jamono rek en réalité maanaam mbir yi léeg-léeg dañuy dañuy renouveler wu moo tax ñu am impression que ni par exemple que ni bis yi dañuy renouveler dañuy renouveler mais non en réalité borom subhaanahu wa bis yi mu bind yëpp maanaam juróom-ñaari bis yi rek ñoom ñoo existé et que juróom-ñaari bis yooyu noonu dañuy feeñ ak feeñaat rek et mbir yi tamit dañuy feeñ ak ni ñuy feeñee waxtu yi heure yi temps yi précis maanaam heure heure bu précis bi day feeñ mais feeñuwaay yi muy feeñee borom subhaanahu bis bu nekk maanaam mi ngi feeñal ay mbir yu bis bu nek mom borom un voilà mais illusion bobu la jox que ni affaire bi ay temps lañu jëlal jamono ay jamono alors que non benn mbir moy xew ba pare xewaat gisoon nañ ko ci euh, est bi wessu ci qui kaw univers en réalité univers bi euh, euh, Euh, lu borom subhaanahu di amal la et que lenn lu ci nekk borom subhaanahu wa dafa am lu mu ci namm de manière précise day am daa iman mbir mi day am ba pare euh, borom subhaanahu wa koy feeñal day day feeñal mbir yi et lépp borom subhaanahu moo koy administrer maanaam et que lépp dafa am ruux lépp dafay dund voilà borom subhaanahu dafa am loo xam te ne moom la ci namm moom la ciy feeñal moom la ciy def. et que li ñuy yaakaar li ñuy xalaat en réalité amul demewut noonu voilà moo tax jamono ji jamono euh, kii bi euh, euh, li di xew soit day nekk jawhar wala mu nekk arab la jawhar mooy gànjar ci wolof mooy substance voilà mooy loo xamante ne tey mënta feeñ lu dul mu mu feeñee ci am gaar gaar ci ard ard mooy phénomène voilà par exemple téléphone bi nga yor wala ordinateur bi nga yor euh, su fekkul woon ne euh, wala boog sama image bi ngeen di gis en fait su fekkul woon ne dafay tapé ci image ci sa euh, écran kon doo ko mën a gis voilà et que mënul exister lu dul à travers bi image bi ngay gis nii voilà wala son bi ngay dégg nii mënul exister lu dul à travers téléphone bi waaw loolu substance loolu la mooy loo xamante ne moom mënut a taxawal boppam moom lu dul lu dul day maanaam mën mën lu dul saa feeñee ci lañ koy mën a xam duñ ko xam sa feeñ wala muy manifesté wu waaw te euh, et que euh, arbre gaar gaar yi tamit noonu lañ mel arbre gaar gaar mooy phénomène mooy loo xamante ne. mooy mooy loo xamante ne euh, comme maanaam moom kese mënut taxaw loolu mooy gaar-gaar mooy loo xam ne mënut taxaw moom kese alors que jawhar bi muy gànjar bi moom dana taxaw mais sauf que pour mu feeñ il faut que mu am mu am gaar-gaar bu fi nekk pour mu mën cee mën a feeñ euh, lu mën a taxaw mooy lan mooy maanaam lool comme lu njool njool gàtt rëy tuuti weex ñuul loolu mënta nekk moom kese il faut mu am ci lu mu appliqué pour ñu mën koo wax ci gaar gaar ci ci jawhar ci benn substance bu mu nekk pour ñu mën koo identifier muy couleur yeeg euh, dimension yi tout ça il faut mu nekk ci ci ci ab euh, couleur par exemple ci ci ab euh, substance ci gànjar loolu moom moo tax muy mën a feeñ muy moo moo d'ailleurs sax moom ci ci loolu rek la mën a exister voilà mais que gisoon nañu ci dars kii boobu faslu boobu te ni borom subhaanahu wa day day créer mbir mi ba pare dindiwaat ko ci ci ay moment yu gaaw ci lu gaaw a gaaw day soppi affaire yi loolu gisul ko et que bi nga xam ne mooy almuhyi mooy ki kii kii joxe dund ak almumiit ak kii joxe dee maanaam dañuy dañuy awante daa iman ci lu lu gën a gaaw fa xippi ci lu ne loolu moom moo tax ñun ni am impression que ni par exemple ordinateur bi nga yor wala sa téléphone bi nga yor wala li ngay dégloo lii wala di ko seetaanee euh, lii nii maam li ñu nekk di wax ni ngay am impression que moom nga téye bi nga téye woon sànq ba tey moom nga téye déedéet alors que borom subhaanahu wa ta'aala ñàkkal na ko fi ba amal ko fi mais ci beneen anam ba pare ñàkkalaat ko amalaat ko ci beneen anam ñàkkalaat ko amalaat ko ci beneen anam euh, parce que euh, yow ci sa jëmmi dund nga fi dee fi dundaat fi dee fi maanaam borom subhaanahu wa ta'aala jëlee nga la fi indiwaat fi keneen ku mel ne yow jëlewaat la fi indiwaat fi keneen ku mel ne yow jëlewaat la fi maanaam ay millions de fois diggante bi ñu fi nekkee léegi wala ay milliards de fois bi ñu fi nekkee diggante bi fi nekkee léegi voilà loolu parce que lu tax parce que en fait mbir mi ci benn moment lay amee benn moment bu précis ci la leer na di amee te dootul amati kullu yawmin wa fi sha'n bis bu nekk borom mi ngi feeñal mbir ci juróom-ñaari fan yi am ci même jour yooyu ci lay feeñale ne ci bis bu ne mais waxtu wu nekk ak lu mu koy indi loolu maanaam lu muy feeñal dafa wuute ak la muy feeñal ci beneen waxtu loolu am na yeneen mbir yu ci aju yoo xamante ne buñ ci duggoon day day day day déjà day day day xóot ba pare day yaatu day yaatu ba pare day xóot te loolu jarul ñu dugg ci ci ci domaine boobu mais en tout cas parce que il faut que ñu comprendre que ni fan yi déjà dañoo wuute ci borom subhaanahu wa ko alxuraan jour yi euh, solo fi muy waxee jour dafa am lu muy tekki bokkul ak yeneen yi ci nekk mais lépp benn mbir lañ bokk mooy jour yàlla yi mooy fanu yàlla yi mooy feeñuwaay yi borom sant naa di feeñ ci mu ciy feeñal et que lépp lépp ay feeñuwaayu yàlla la amul lu dul feeñuwaayu yàlla borom subhaanahu wa ta'aala donc waxtu wu ne seconde bu nekk wala tierce bu nekk dafa unique li ciy xew dafa unique li ci borom subhaanahu wa di feeñal ci am am ci nekk-nekk dafa unique. voilà c'est que illusion bi maanaam euh, suñu xel ni wax mu mooy def-def lay illusion yi ñoom ñoo tax ñu foog ne boobu léegi benn nit ki ngeen nekk di gis nii boobu léegi déedéet diggante boobu xam léegi soppeeku na fi lu bari ne serait-ce que ci buntu zahir tey buñ ko bëggoon a xam mooy ci diggante boobu ak léegi am na ay cellules yu bari yu dee ci man ak ay yeneen i cellules yu jub ne serait-ce que loolu tax na ne maanaam ba tey nekkuma même nit te loolu soo xoolee waa mécanique quantique par exemple ñoom bu ñuy bu ñuy bu ñuy euh, étudier par exemple électrons yi wala protons yi euh, da gis dañuy jógee ci benn niveau d'énergie dem ci beneen sans am maanaam fu ñu fu ñu maanaam diggante bi du fi jaar maanaam day day day génne day deewee fii maanaam day jógee fii feeñ fii ci même moment bi mu jógee fii mooy comme loolu moom moo indi euh, par exemple gisoon nañ ko biñ doon gis ci jotaay yi weesu ci bi ñuy jeexal euh, ba biñ te weesu mooy xayaatul kawni euh, gisoon nañu euh, li Seydina Aasif ibn Barxiya radiyallahu anhu dem defoon maanaam Yaman ba Palestine dégg mu jël trône Balqis bi ah te trône reine de bi mu annulé ko fële maanaam daf ko daf ko daf ko inexistant fii fële mu ñàkk am mu amal ko fii ci même moment bi mu ko ñàkkee amalee fële maanaam loolu la def mais loolu gaaw bi mu gaaw moo tax ñuy foog ne même bi la alors que déedéet moo tax gaaw bi mu gaaw moo tax nit ki tey bu taxawee figé benn affaire te d'ailleurs loolu euh, wax ne euh, que ni ay photo yu bari la ñuy tegale ay yu bari bari bari bari bari bari bari bari la ñuy tegale loolu moom moo tax ñuy ñuy gis film bi en réalité et que dañu am bon yu njëkk yi film yu njëkk yi moo tax da nga daan gis bande bi soo ko xoolee maanaam gis clique yi cliché yi ah photo yi baree baree baree bare ñu moo tax ñuy am impression di gis ne ndekete film lañ gis mbir mu continue la alors que séquence yi film bi séquence yi benn bu ci nekk bokkut ak moroomam mais comme jël nañ par exemple cinquante wala cent photos ci benn seconde bi donc daf ñuy jox impression que ni continuité dafa am ci image c'est la même chose pour adduna bi li ngay gis yi yëpp bees yàlla borom faasa dafay amal lii ci même kees bi génne ko amalaat leneen génne ko fi amalaat leneen ci même kees bi mu génnewaat loolu amalaat leneen loolu yëpp ci kattanu borom bi lay amee sans que nit ñi yëpp ne am na bu borom bi bind ci nag dafa am lu mu namm ci yow mooy lan. mooy li mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun binduma jinne ak doom aadama lu dul ngir ñu jaam ma donc yow ceebs bu nekk ci ceebs yooyu noonu da nga war a nekk ci li neex borom bi subhaanahu wa taala daa'iman maanaam waroo nekk ci leneen lu dul li neex yàlla kese saa mu am lu ci rax nii lu ci dugg lu ci bokk lu ci dugg wala lu ci génn waroo koo raxee dara jaamu yàlla gi ne gi nekk gi nga war a nekk ci li neex yàlla warul rax dara. li neex yàlla rek la war a doon loolu nag dañ koy jàng moo tax xadis bi ëpp solo ci lislaam bi ci gën a rëy mooy xadis innamal a'malu binniyat mbir yëpp ci yéene yi lay aju jëf yëpp ci yéene yi lay aju maanaam mooy li nga xamante ne sax ay mbir la yoo xam ne naturellement la ko nit ñi di def mi mu nekk lo xamante ne aada la euh, manam dans la vie bon voilà dans les dans la société voilà de manière euh des voilà de manière nan euh, habituelle wala manam sans que nit ñi bayyi ci xel dañ koy def quoi naturellement voilà lolu nit ki sóobu ci yoonu yalla daf ko wara loolu daf ko war a traduire en acte culturel en en en en voilà daf ko war a traduire a soppi mu nekk jaamu yàlla voilà mooy comme ni euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu naan ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyaami damay jaamu yàlla ci samay nelaw comme ni may jaamu yàlla su taxawee di julli parce que lu tax parce que suy nelaw day yéene nelaw ci nelaw yi mais borom subhaanahu maanaam bu ko defee mu mën a amaat doole koo xam ne mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu dëgg ak ci li mu ko mën a def te yàlla bu bi ci mooy ni ngay mën a nelawee di di maanaam ci ne mooy tax sa la borom subhaanahu wa jox parce que daf la ko dénk nga mën ko toppatoo. sa xol dafay soxla ay repos yi ngay ci say nelaw ngir rythme cardiaque bi mën a normal voilà nga ne ngir toppatoo ko tamit parce que yàlla daf ma ko dénk pour voilà il faut ma toppatoo ko ko tamit nga yéene ci loolu nga yéene par exemple que do voilà comme ni maanaam sa yaram mën a sawaraat ci jaamu yàlla parce que soo soo gëmmentoo soo nelawul bu baax sa sawar jaamu yàlla gi day dee nga yéene ko li ma bëgg def et cetera maanaam même sama humeur yi may mën a am par rapport ak nit ñi may nekkal te ñooñu di ay jaamu yàlla te ma war a am jikko ju rafet ci seen kanam ñooñu tamit su ma nelawul nelaw bu doy bu baax peut-être que mu am influence ci ñoom mu am jeexital ci ñoom mu yéene waale ko ci de suite maanaam dañ joxe exemple nelaw mais noonu nga mën a defee exemple lekk ak naan de ma loo neex noonu nga ci mën joxe ay exemple ceex boo nekk ci kaw suuf borom bi bàyyi la fi ruux googu mu wol ci yow et sa bakkan bi mu la jox sa xol di di di yëngatu di baax ngi ngay dund ceex boo fi def dafa war a nekk ne da ko da nga ci war a nekk ci li neex yàlla kese amul leneen loo ci war a tax li neex yàlla kese te leneen loo ci def def nga li tax maanaam lu wuuteeg la taxoon ñu ñu indi la fi te mooy jaamu yàlla lenn leneen muy jaamu yàlla kon nag lépp loo xamante ne dana la mën a yombalal jaamu yàlla googa tamit da nga cee war a def yitte ngir ne dala yombalal jaamu yàlla gi waaye nag lépp lu la yàqal jaamu yàlla googu itam da ko war moytu. ci kaw loolu kon maanaam même alal soo koy wut sax wut ko ci kaw ne daf may yombalal jaamu yàlla ji jaamu yàlla ji waaye loolu tarbiya la laaj defaru defaru la laaj loolu képp kenn mënta toog rek yéene ko loolu yéene ko ba bu seen <coughs> loolu <coughs> dafa laaj defaru <coughs> voilà Euh, kon sa waxtu wii nga xam ne càppaacoli la benn bii rek nga am en réalité mu ne na nga sàmmoon tam wadrib na nga dóor anil maadi <clears throat> wëlif maanaam mooy na nga sànni rek anil maadi ci li nga xam ne mooy euh, li weesu wal mustaqbal ak la dëgmal li li weesu ak li jëm ci sa kanam yépp bul ko bàyyi xel googu bàyyi xel naam lu weesu léeg-léeg mu am njariñ nga dellu ci mais loolu ba tey day defar sa tey ëllëg tamit dina am solo nga suuraale ko ni ko di wax sama mbokk wolof yi nee nañ du añ eh, xam naa loolu am mbayeen moo ko wax sax ndax ñoom exemple yooyu rek la ñu du añ du reer ak yooyu rek lañu joxe eh, kon loolu <laughs> moom mooy Euh, <coughs> di sóoraale kon ëllëg ngir su ñëwee mu nekk sa jamono ji nga xamante ne tamit danga ci taxaw ba pare mu nekk jaamu yàlla waajal ëllëg ngir mu nekk jaamu maanaam ngir ëllëg su ñëwee mu nekk jaamu yàlla ci yow y compris ci ñeneen ñi parce que yow tamit en tant que aadama yow yaay xalifa yàlla ci kaw donc lépp luy tax ba adduna bi di jag yow da cee war a taxaw que ñeneen ñi di ñëw ñooñu ñu jouer seen rôle en tant que xalifa yàlla bi jàkk mbir mi continuer euh, ci note de bas de am na wax du am solo jum ci wax euh, mais dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu doog ko jël wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in